idée bi euh, xumaana ko génne bu ñu président bu ñu recevoir euh, président bi daf ñu félicité ne bon franchement li di def ci sensibilisation xumaana ko non dinañ def leneen sax dinañ euh, ànd booloo def benn son boo xam ne bénéfice yëpp xaalis bi yëpp dinañ ko jagleel ministère de la santé mooy suñu contribution donc idée bi foofu la jógee ci xumaan donc man coordination production exécutive bi laa def mais je veux dire suñu idée la ñun ñëpp daal parce que ku ne yokk na ci dara quoi vraiment ci euh, waxtaan nañ ci at ñëpp et ku ci nekk ci artistes yi yokk nga ci dara donc euh, woowu ma ne man maa def ko man dama ko réaliser rek mais sinon euh, xalaatu ñëpp la et ay xol yu rafet yu set énergie yu baax ñoo ànd et puis mu mu joxe lii quoi et surtout suñu grand frère Youssou Ndour accepté ñu jël morceau am et puis mu accepté aussi jouer le jeu suñu papa Idriss Diop si jouer le jeu vraiment tous les artistes daal xam nga dama bañ a lim juum mais franchement artistes yëpp dañu ñëw ak xol bu rafet vraiment affaire bi yomb euh, liggéey xam nga et aujourd'hui à part techniciens yi ñoo ñoo ci sonn rek mais sinon euh, euh, la la ambiance su liggéey bi franchement lépp rafetoon quoi. ñun dañu gëm ne dañu gëm ne sensibilisation de doy parce que voilà gouvernement bi mun na génne ay xaalis euh, gars yi def lu ne euh, médecin yi liggéey ba sonn mais sensibilisation bi je pense que c'est cinquante pour cent du travail donc ñun euh, loolu ci loolu la ñu xamee bien avant lii di am donc ci loolu la loolu la ñu nekk donc objectif sensibilisation mais aussi dinañ jaay morceau bi ci yenn plateforme yi léegi à partir de demain di ngeen ko dégg et puis ku télécharger morceau bi di nga participer euh, à l'effort de guerre c'est-à-dire soo jëndee morceau bi deux cent francs télécharger ko sa téléphone et eh bien yow deux cent francs yooyu lépp mooy dem ci ministère de la santé voilà donc suñuy contribution ñun en tant qu'artiste mais aussi ñu koy déglu ñëpp mun nañ contribuer pour dire que voilà Sénégal su su su su nar a jóge ñëppay jógandoo quoi dóorandoo et puis euh, daanandoo waaw déjà euh, merci ci appel bi et participation bi mais comme je dis rek ñun suñu rôle euh, on est des graffeurs sensibiliser conscientiser loolu ci suñuy démarche la bokk et euh, lii ñun on le faisait avant même pandémie bi di am dans le monde on faisait Graffé santé pour sensibiliser population par rapport ak différentes maladies ak période yi mi am ci at bi maintenant euh, lii bi mu yegsee comme tout un chacun on s'est dit il faut que ñu ñu indi aussi suñu apport dans le dans ce combat là mooy ñun on n'est pas médecin on chante pas mais c'est là les arts visuels moom la ñu am te communication boobu gis nañ ne impact bi mën a am ci population yi parce que les les les les les gestes yi nga xam ne moom la médecin yi wax nañ ko def euh, te consignes yooyu ñu respecté ko ñun c'est ce qu'on repro c'est ce reproduit en image euh, chaque personne chaque Sénégalais a a a l'obligation de participer contre cette lutte contre le coronavirus donc nous on s'est on s'est n'est pas cherché du lendemain on s'est levé comme ni ñu koy defee d'habitude sensibiliser ci benn affaire boo xam ne dafay laal ñëpp donc l'initiative elle est elle est elle est spontanée quoi elle et bien sûr parce que les les gens le reprennent même pour euh, pour illustrer euh, yenn yenn message yu ñuy def ils reprennent nos images sur les réseaux sociaux partagent et puis fi nga koy defee euh, boo commencé du peinture déjà di nettoyer espace pour préparer mieux la curiosité des des des habitants Euh, ils vont rôder autour de toi boo commencé commencé boo commencé dessiner rek sa il s'en rapproche ah kon lii ça va ça va parler de ça ça va parler de image rek ils déjà li nga bëgg a def lan la et puis certains se rapprochent nuyu la discuter ak yow nga profito yokk sensibiliser parce que tu te sensibilises yow sa bopp ci même système de sensibilisation nga sensibiliser Massamba ma demba am na ñoo xam ne di information bi ñu lay jox sax da lay permettre nga gën a mën a parfaire le message que tu es en train de euh, de de de passer aux populations et les choix des lieux permet aussi euh, la vulgarisation de ce message parce que boo jëlee lu mel ni euh, garage nga def fa fresque bi wala nga dem ci benn marché wala aussi mur hôpital yi nga xam ne nit ñi dañ koy fréquenter et c'est bien bien visible comme lu mel ni Fann dafa am garage à côté ay c'est un mur Euh, foofu boo fa defee fresque yi ñu fa def dafa impacté noonu la ko yeneen noonu la ko aussi ñeneen ñi di defee ci biir ci dans les dans les autres coins de Dakar Dakar comme du Sénégal pour pouvoir sensibiliser les populations et impact bi gis nañ ko parce que nit ñi comprendre nañ li ñu bëgg wax on a utilisé des scènes de vie on a utilisé des images nga xam ne ku jàng ku jàngul dalay impact